ami internetu AG PROD TV yi ñu ngi amaat contentement ak mbégte bu baax a baax di dajawaat yéen rek ci seen info du jour waaye nag képp rek koo xam ne abonné goo ci seen bile ñu lay wax nga daal daw abone te activé rek li nga xam ni moom moo di cloche de notification bi ngir ngeen di man di am suñu ay vidéo à temps bu leen fàtte di like vidéo yi ak di ko commenter ndax lu ci am am solo la. ci politique lañ koy daal di dooree coow lu dox ci diggante Mame Mbaye ñaa ak ki nga xamante si rek moom moo di Ousmane Sonko gannaaw rek ba nga xamante si ni ñoom ñaar ñooñu rek taxawoon ab procès muy la trente mars bi ju génn rek nga xam ne nag kii di Ousmane Sonko rek dañ ko rek daal di daanoon lu tolloo ko ñaari ati ñaari weeri kaso yoo xam ne rek du ko daal di tëdd maanaam deux mois de sursis ak 200 millions de francs CFA yoo xamante ni rek amandoon nañ ko maanaam rek ab ndàmpaay la boo xam ne rek waroon nañ ko rek euh, daal di jox ki nga xam ni moom moo di Mame waaye nag moom Mame moom lee daal dina rek xam ni d'accordul woon benn yoon rek ci li nga xam ni euh, moom moo di lee boobu lee àttee ba tax na rek mu daal di defoon ab appel ak ki nga xamante si rek moom mooy la procureur euh, de la république moom tamit ak daal di defoon ab appel ngir rek ñu daal di mën a àttewaat boobu les dossiers doxoon ci diggante. Mame ak kii di Ousmane Sonko muy ab dossier boo xamante si dafa jëm ci wàllu diffamation diffamation nag mooy rek loo xam ne rek mooy daal di tuumaal doomu aadama bi loo xamante si rek daal di wu ko def maanaam sosal nit ki te amoo rek ay preuve yu palpable yoo xamante si rek eh, teg nga ko ci eh, taabal ji ba taxoon na nag moom Ousmane Sonko moom le Mame Mbaye Niang nag daal di ko ci porté woon plainte ngir rek ñu daal di leen di àtte. boobu le procès nag tey jii rek lan ko daal di amalaatoon fa la nga xamante ni rek moom mooy ca tirbinal bu Ndakaaru waaye nag gannaaw rek ba nga xamante ni rek dem nañ foofulee ki nga xamante ni rek moom mooy eh, ñii di waa avocat ak yu ñoom nag dañoo rek daal di demandé waat à que rek maanaam rek procès boobu ñu daal di koy renvoyé waat ba le rek mai bii di daal di dikk lan daal di rek renvoyé waat eh, dossier boobu dox ci diggante Mame Mbaye Niang ak ki nga xamante ni rek moom moo di Ousmane Sonko. li ci xaw a doy waar tey ci am xel nag bokk na ci côté Ousmane Sonko nga xam ne rek saa suñ ko Moussa wax rek Euh, ni ko da ngay daal di wuy ji fële ca diwaanu tribunal dafa daan génn rek di def ay euh, sortie di daal di mobiliser nit ñi ngir rek ñu génn ak di def ay conférence de presse waaye nag cette fois yi dañu gis ne Ousmane Sonko dafa am ab tekk tekkaaral yooyu ci yàbbu ci waxu ci lu mel ni lu toll ni dërëfatal ay ni mu mel ne nag dafay daal di xaw a lëndëmal ay xelu doomu aadama yi lan moo tax nag kii di Ousmane Sonko génnul def ab sorti waaye lan moo tax moom Ousmane Sonko yooyu ci yàbbu ci ci lu jëm ci wàllu projet boobu boobu lay mu daal di doon nag loo xamante ni lu daal di rek jeexal doomu aadama yi la ndax nag su fekkente ne nag kii di Mame Mbaye def na daal di ab appelam rek même Ousmane Sonko am na droit moom it def lu ni mel ndax nag may nañ leen rek ku ci nekk rek lu tolloo ko weeru yàlla boo xamante ni rek bu la neexee ci tànk un mois bi jeexul rek mën nga ci dugal sa appel ngir rek ñu daal di leen di àttewaat ca la nga xamante ni moom la gën a yelloo ca diwaanu tribunal boobulee waaye nag moom Mame Mbaye daal dina xam ne rek moom du bàyyi tey du bàyyi ëllëg ndax nag li ñu daan Ousmane Sonko ci ay weer dafa daal di ndaw ndax nag loolu kenn mosu ko gis rek ci lu jëm ci wàllum dossier de diffamation ndax de mois euh, mosuñu ko fi tëj kenn donc war nañ ko mën a tëj lu ëpp loolu ba pare war nañu koy it mën a rek daal di amande lu ëpp sax loolu lee waaye nag moom Mame Niang daal na xam ne rek mbir mi nag euh, du ko daal di bàyyee noonu mu yomb waaye nag kii di Ousmane Sonko nag guddi yi nag mbiram nag daldi na xaw a doy waar taxasuuf bu baax a baax baax a baax jëm ci rek li ñeel candidature am 2024 yi di dikk ngir rek mu mën a doon li xam ni euh, ndax nag ba tey rek mu ngi ci ay procès yoo xam ni dara rek daal déggu ci leer ba tax na nag lu ñu mel rek bu fekkente ne daan nañ ko ci loo xamante ni daf koy tax mu daal di éligible inéligible rek doodoo ma dootul rek mën doon li nga xam ni moom moo di président de la république du Sénégal mu doon na ko loo xamante si lu mit la waaye nag loo xam ni lu euh, doy waar la fii ci diwaanu Sénégal lu ñeel ceewal kii di Macky Sall jëm ci digganteem ak Idrissa Seck moom euh, Macky Sall nag Idrissa Seck daal di xam ne ni moom nag dafay rek soutenir lu jëm ci rek candidature kii di Ousmane Sonko waaye nag d'accordul benn yoon ci li nga xam ne rek moom moo di euh, candidature kii di Macky Sall. mu teg ci nañu Macky Sall nag su fekkente ni rek lii di sunu constitution constitutionnelle rek def ko rek valider li nga xamante ni moom moo di candidature am jëmale ko ci élection 2024 yi di dikk rek moom Idrissa Seck nag daal na xam ne rek du fi def rek fi defoon 2012 du ko fi daal di def dafay rek daal di génn dem euh, campagne du fi du xeex te du def lu kasu dul euh, noonu kon nag moom nag day daal rek génn rek dem daal di dem campagne yi waaye nag moom Idrissa Seck ba tey daal di yëkkati woon ay kaddu jëmale ko rek ci ki nga xam ni moom moo di lee Ousmane Sonko moom le daal di xam ne rek kii di Ousmane Sonko nag defar rek daal di juum ndax nag maanaam état rek kenn du xeex ak moom te nag nee na kii di Macky Sall daf ko bëgg a faagaagal moom nag bu fekkonte woon ni Macky Sall daf koo faagaagal du ko bëgg a faagaagal du ko faagaagal guddi waaye nag bëccëgu dara kàmm rek la koy daal di faagaagal en la preuve en mooy rek bi nga xamante ni bëgg nañ ko rek jël ci ab otoom dañ ko faa fekk rek daal di toj ay vitram dañ ko coppet daal di yóbbu te coow jibul kon nag moom mën daal di def ndànk rek eh, te bañ nag di attaqué ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di lii di état bi lee ndax nag état kenn du xeex ak ñoom loolu moo gënoon a fes tey ci xibaar yi mbokk yi jox leen dig daje beneen yoon incha allah.